Je m'appelle Abdoulaye Silla, Leïdireu Abdoulaye Silla, euh, membre du Conseil des notables Libou du Grand Cabaret, en association avec le Conseil, vos Conseil de la collectivité Libou. Euh, on est venu aujourd'hui soutenir euh, des frères, une organisation locale et je dirais même des organisations euh, locales qui se sont réunies en collectif pour défendre l'intérêt des populations. Euh, il se trouve que l'histoire a fait que euh, depuis très longtemps, nos grands-pères étaient là et défendaient une propriété coutumière dans la même logique, aujourd'hui, on se présente pour défendre cette même propriété. La situation actuelle, c'est quoi et comptez faire euh, Actuellement, nous comptons vraiment nous défendre. Et nous comptons aussi euh, faire face à l'État. Quand on dit l'État, c'est le gouvernement. Et Dieu a fait qu'on applaudissait en 2006 la décision qui concernait le décret 103 qui disait que les villages qui sont sur euh, le titre foncier 1975 seront maintenus euh, avec une extension et une utilité. C'est l'argument qu'avait présenté le président de la République pour euh, prendre le titre auprès du propriétaire qui est le général Bertin. Donc euh, on applaudissait, mais on se trouve aujourd'hui très lésé de, la part de l'État qui a pris cette même propriété pour le donner à des privés au détriment des populations locales. Il se trouve que depuis très longtemps, les gens euh, avaient des, exercices sur le terrain, notamment des cultivateurs, des éleveurs et même des, promoteurs qui anticipaient sur la nouvelle urbanisation. Ils sont tous les aujourd'hui de par le nom respect du contrat moral de l'État, du gouvernement, je dis bien, par rapport à ces populations. Parce s'ils avaient respecté le, euh, euh, motif de, du décret, on n'aurait pas eu arrivé à ce point. Parce qu'aujourd'hui, nous serons servis, les populations seront servies, les promoteurs seront servis, mais aussi les infrastructures dont toute la communauté a besoin aurait une place euh, sur le TF 1975 En tout cas, nous ne baisserons pas bras et nous allons faire face à l'État par rapport à cette promesse. Et s'il ne respecte pas cette promesse, nous allons même nous constituer et porter plainte contre l'État et attaquer ce décret pour lui faire comprendre que nous sommes des citoyens responsables et nous ne pouvons pas laisser toute la population être lésée au profit d'une d'une centaine de personnes qui se croient être responsables et qui trahissent ces populations. En tout cas, nous, allons faire face à tous nos moyens jusqu'à ce qu'on ait l'obtention d'un gain positif. En tout cas, nous, appelons aussi à la concertation parce que nous avons des solutions par rapport à ce problème. nous attendons qu'on se retrouve autour d'une table parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit lors de la dernière conférence, je suis très déçu de par euh, les paroles qui me faisaient vraiment, euh, qui nous satisfaisaient en entendant M. le premier ministre va dire que, en tout cas, c'est le Douyoy qu'il y, avait, qu'il y aurait une solution vraiment pacifique qui ferait que tout Bambilor serait titré et que l'extension va venir aussi si ajouter pour que les jeunes, tous les jeunes de Bambelo puissent avoir des terrains, puissent habiter dans leur localité, dans leur village natal et rester et travailler dans cette localité. Quelle est la responsabilité des autorités locales face à cette situation Je suis très déçu Je suis très dessus par les responsabilités locales. Euh, ils ont fauté, hein. je ne vais pas le dire ici, mais dans le sens où ils ont incité les populations à occuper le terrain illégalement, et maintenant, après avoir bien investi, ils se retrouvent avec des problèmes et qu'ils ne voient pas ces responsables-là autour d'eux pour les assister. C'est ça qui, manifeste ma déception. tous les collectifs groupe voisin pour garde di cycle bi nga xam ni garde di cycle bi nga xam ni mu ngi fii ci commune u Bambilor muy 1975 nga xam ni 1975 suñuy maam moo fi nekkoon képp koo fi gis waajuram def na fi cinquante ans wala 30 ans wala 60 ans mais tey lan lañ ñu fayee dañuy yeewu rek fekk suñu maam yi ak suñu yaay yi ci biir tool yi génne leen fa ak ay titre foncier wala ak ay bail dërëm duñ leen ko jox léegi sax lañu ñu commencé négocier ak suñu yaay ak suñu maam parce que bu njëkk dañuy xéer rek duggal machine guddi terrasse ba taxna na dëkkuwaay soxla woon nañ ko ay jamono ci gannaaw depuis 2012 wacc ba 2019 tool yi nga xamni jige won na dekk bi ñu xol ne mu ngi ci 1975 ak commune bi waxtaanoon na ak borom tool yi nga xam ne amoon nañ fi ay délibération yi nga xam ne ay sous-préfet approuvé woon nañ ko parce que boo duggee ci biir 1975 di nga fi gis naam ay notification mais di nga fi gis naam ay délibération depuis 2012 ku ci mel ni présidentiel sama gannaaw toolam am na délibération am na approbation sous préfet keneen noonu extra d'autres tool yooyu ñu jël ko yokkee ko dëkk bi tey ay nit dëkkee fa lotissement yooyu nga xam ni nag ay alignement lañ ko tuddee maire bi japon ni mën na défar defar ko défaré def ci ay notification bi ci défé ay notification notification yi liñ ci jublu won moy nit ñi am kaaraange woné ni fi ñu 150 mètres carrés yi ñoo ko ak dundal commune bi fay ci 100000 francs mu dellusiwaat ci population Bambilor tay yooyu nag kër lañu ñu yeewu gis ay nit bind miir yépp ne def fi jóg wala ñu fay leen impasse parce que ay nit ñoo am titre un certain mën na ci nommer comme Sétif Khafa Touré il a dit amna 50 hectares 50 hectares am muy réclamer tay fi ci Bambilor buñ ko vérifier xol notification yi nga xam mom le la mairie bi joxone personne individuelle li fi amone ay tool ak délibération yi ñu yoron ñëw mak titre foncier boobu lool nak ak jaaxle gu reuy la indi ci commune Bambilor parce que loolu yemul rek dëkku Bambilor village dafa laal commune bi yépp parce que 1975 mo ëpp doole tay ci commune Bambilor c'est village fi wala village fi doole tey ñu ngi ci projet d'accord nañu état def ay projet pour yok suñu xar kanamu dekk mais nak dekk bi am lu mu soxla dekk bi soxla na ay Il y bi soxla na ay marché dekk bi soxla na ay a doxal euh, euh, euh, bi bu yaatu ba jeunesse bi ak suñu jigéen ñi ak sunu rakk yi ñu mën a am ci 1975 ay kër ba tax na Abdoulaye Wade joxoon nañu benn titre titre boobu nag mu ngi fi am na droit de royal am na arrêté arrêté boobu nag la ñu xamul di laaj état arrêté boobu tey lan la tekki parce que bu ñu nee arrêté boobu lan la tekki mooy décret boobu nga xamante ni président Abdoulaye Wade defoon na ko depuis 2006 am na lu mu wund waaw la mu wund mooy xanaa ñu yaatal dëkk yi ak sàmm gi ak koom-koom gi gën a continuer mais tey loolu dañoo gis ne dafa ne tey lan lañ fi gis ay promoteurs yu jóge ca àll ba ñëw tey indi seen i baay indi seen i titre ñëw bëgg nangu kër yooyu toj kër yooyu wala soit ñu dédommager borom tool yi wala borom teen yi waaw foofu ñun li ñu gis mooy actuellement euh, ku ne xam na lébu ah. waaw ku ne xam na lébu ak suufan ah. parce que booy wax dañuy wax ne Tu fais te amul amul tu mais tu ñun dañu les gens qui ont Bambilor yëpp ñu joxante loxo Tu taxaw ñaan état man ma dem en tant que toujours ma ngi APR waruma wax ci média yi m'a ngi son excellence président Macky Sall li ko ci réew mi mu commune Bambilor parce que projet bu indi fi mais tey waa Bambilor parce que une ben autorité gisuñu benn autorité te démb autorité yi dañu doon soxla pour jël suñuy xob jox ko président Macky Sall ñun ñuy taxaw tey ku ci mel ni Cissé ku ci mel ni man ku ci mel ni ndey ji réew keneen jël na alalam jaay pour président Macky Sall faru pour Ngagne Diop tey nekk maire toog fi mu war a toog mais tey gisuñu kenn léegi nag dañuy ñaan état xeexuñu taaluñu pënë projet yi nga xamante ni indi nañ ko fi lotissement yi ñu fi fekk ñu dëkkee ko noonu nañ leen maintenir bàyyi leen fi loolu bokk na ci di defar espace vert yi nga xamante ne mu ngi ci biir projet lotissement yi ñu jox ko commune bi mu jox ko waa dëkk bi lu ñu fa a def ñu def ko parce que dëkk bi xat na tey jii booy xool suuf desatul Tivaouane Peulh suuf desatul Sangalkam Bambilor moo des tuuf te suuf si jeex na foo laal am na ku fa nekk te it ñuy vérifier titre foncier yi ñuy indi ak bàyyi maire bi aussi ñun xasuñu ko ñu ngi koy tàllal loxo mais lenn rek lañ ko wax mënoo nekk maire ci commune nga yeewu rek benn siisa ba indi benn baayam ne la am naa baay mais avant baay boobu yi ñëw war nga def avis favorable avis boobu ñu la demandé bu ñëwee wool say conseil on a 54 conseil wala woo leen nga waxtaan ak ñoom ñu woo autorités yi woo notable yi woo waa dëkk bi waxtaan ak ñoom ne leen seen tool yi lii la ci état préparé mais loolu amul fii ci suñu commune li fi am mooy da nga yeewu rek ñu yeewu la buum dóor la nangu sa suuf lii daal moo fi kon kon maire bi taxawaayam des na par rapport à ça aussi d' après ci li ngeen wax est que ñenn ñi li ñuy wax ni da ngeen di défendre seen intérêt est ce que loolu aussi amu ci. non man en tant que Mademba Ndour xam naa sama bopp mais xaw ma kaneen xam naa it aussi ma yokk ci ñi ma àndal di xeex du kenn koo xamante ne nii tey yaa ngi xeex pour taal pono wala défendre sa bopp da ngay défendre pour intérêt population. parce que amaana naam la nga def xam nga la ca mën a fekk mais amaana naam la nga def am na foo tegoon sa tànk ba nga koy def te am na lu tax nga def ko moo tax toujours damay wax ne nag bi su deewee deret ji dina dem fu ñu ko yaakaarewul kon donc li am solo mooy que ne foofu maa ngi woo tous les promoteurs ñi nëbbu ak ñi nëbbuwul koo ci dem seeti nelawatul guddi parce que tey boo dawee ñun ñoo gën a néew luñ liggéey ci Bertin bi ah. ñun ñoo lan moo tax mairie bi donc faale wu leen ci li Wow, bon xam nga fofu lutax maire bi nous, c'est une question bo xamanteni man le maire nga ko wara laaj balen bi ci que nous ñun demandé nañ ko ñun ñun demandé nañ ko audience bind nañ ko dem nañ ci nañ ko téléphone avant ñuy dem fenn mais pas ba tey recevoir kon mom so ñuy demandé lutax mom gisunu ko suñu lañ ko laaj xam te aussi, aussi ko waaye dama ne ko bu bàyyew askanam moom dem ci askanu jàmbur bu subaa bu delloo ci askanam fekk fa ñeneen te aw askanam ñoo ko def li mu doon kon nag askanam woowu na ànd ak ñoom ñu wut ay audience président may ñu audience ñu wax ko doléance yi parce que li ñu fi daloon bëggatuñu mu dal ñu fi parce que ñun dañoo bëgg suñu dëkk avancé. boo gisee ñuy tudd toujours 60 hectares ñun tudd ñu 60 hectares pour xeex ko pour jël ko déedéet dañ ne 60 hectares Abdoulaye joxoon nañu ko. ñu digguñu ko nañ ñu won suñu sat soixante soixante hectares yooyu ñu mën ko jox suñuy doom ak suñuy jarbaat pour ñu dëkkee ko bu ëllëgee la ca des ñu mën ci def li nga xamante ni moom la ñu soxla li nga xam ne mooy doxalub dëkk mais xeexuñu pour jot cent hectares pour faye koy bor déedéet dañuy xeex pour jot cent hectares pour yokk suñuy dëkk parce que soo demee déeni biram ndaw mu nga ne ne cent hectares lañ ko jox te Bambilor moo njëkk am arrêté te Bambilor gisul dara loolu nag jaaxal nañu trop te gisuñu benn autorité bu ci wax le président Macky Sall ba mu ñu recevoir en 2019 man bokkoon n'a ci ñu recevoir il a dit avec bonne foi que ne dinañu jàppale pour sosu euh, ñi nga xam ni ñoo yore compétence suuf soosu dinañu wax ak ñoom pour ñu dimbali ñu pour ñu yokk Bambilor loolu nag fan la tagee mooy ñu ngi woo jeunesse bi ñu ngi woo dëkk bi nañu ñëw ñu àndoo te waxtaan te pencoo te xam intérêt village la ak intérêt commune loolu maa ngi sant ñëpp di gërëm